Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Royal Horizon Baobab, feel free, feel home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. dama télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Bravia Hôtel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. au royal Burundori. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Laïdjara remercie ses partenaires. Gay artiste peintre. By HLM, e votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels.

xos lu feeb ba tedd fii mooy kapsi kapsi kapsi kapsi kapsi kapsi welcome to my dark side teewal si kap teewal sama gox si kap bi dëkk neexee ko nandi tee ko jaay brek fii la lépp di xewee Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Maroudi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV.

yow mënuma ko Jara. ah kii du sama goro. noo def. dama yaakaar sax da nga génn. déedéet boo may woon ci biir di dallu dama la soxla woon. yow de sama goro nga. yow boo ma soxlaa yow samay tànk. doon toogal toogal. na nga ci jàmm. ñu ngi sant bu Jara kilifa nga. te kër gi nag sa kër la te ñu la dara ñent ak trans rek lañ la laaj am na yoo xam ne nag jekkul jaaduwul ci kilifa ci mag. pa yaa ngi dégg. yàlla baax na man maa ngi kii. ma dem rek yàlla baax.

enchaîné ko nak ma yoma jàmm xam nga lan la non man man damay xey man damay xey wala am jam nga yak sama journée voilà mi ngi ni waaw fonde bi sax mënutuma ci laal voilà mi ngi nii waa doole baax na yow mom yow war nga éviter naaj bu tuti ngay ñam ker gi dee ko ñam ker gi dee ko ñam mais naaj bi café gi bo jekku jek nak yaay raw sondeel da ngay jek jek ruy ba jeex tak mais les vieux baxul yaangi ci yoon baxul ah vraiment décidément Et puis là, l'activiste de la CICAP qui m'a chiffondé. Pour yo yoro tous nada fucking. Tu dénonces pour avoir de l'argent. Nous, on sait, il n'a dit télé. On comme si mag bu ñak fayda. Il a fa ñak fayda. Yow sam papa limu def ci yow. Su ko defone ci man heure bi xol am nañ kër almadi. Voilà ce que je disais. Li ngeen ni rêvé moy vie de luxe. Yeen activiste ici. Tu vois non Je disais vrai. Mbay, yow xana xamone ki sa rak la. Yaay. rakk mi nga wara waxal mo gën sikku kuy man du wax ak yow yow complexe nga dundu complexe ngay dundu yow jugee dem ci restaurant di sinap di génne ay photo lu nga def ko fo rombu miir bu rafet sa bo fo rombee taxaw fa sinap fa pour woné sa bopp yéen da ngeen nek ay complexe yow sa gàlla ngi ni fo la lañu añee sinabal do sinap ko fondé bi dul ko ci réseau yi attends sinabal sinabal la famille jara mas di fonde waaw kudd yaa ngi nii bay bay woi way sinabal sinabal ñàkk ya, jom yow xam oh, ya, ni complexe yéen mulai mënu yang ngeen yanu affaire bi hmm? bu leen ko mettil waay moytu rek mbay sa papa nag war nga ma kaa toppal xoola ma fu muy dugg ndax jaaxal na ma lool saa bu xëyee na sañ sa génn toppal ma ko Hein. Il est majeur et vacciné. C'est sa vie. Tout mon toi pour mon quoi. Le Yo, topal mon kanganan, dokumati yoy. de yoy, non. Et non. Mais grand, vraiment content na la tay. mais amul solo, Il solo. <laughs> Immeuble deux ans ma wër Mais bon,

booy Sénégal amatina ndam te mbaa yëngu loolu. jara man businessman la damaa gëm ku liggéey ku ne jariñu lii yaa moom xam nga ñuy def ma déposé la sa buntu kër. doo ma déposé yow libéré naa la yow libéré naa la bàyyi ma laal taxi nànk tàllal samay tànk wàcc sama buntu kër dara du xew jàmm rek mais dégg naa booy Gorée Île de Gorée lañ koy jaay de marché bi mbaa yaa ko yor. jàppal léegi business bi mu Apa problem? Eh eh eh. Jar yang FIFA tu saya gudi. Boy, emang suka bila kau. Mereka problem mental bang FIFA. Nasib bagus. Eh, Sama frang ini, para por elindon wah, por takbi, mezus nyidak cipta ku farak karek, waaw daf ci farata cent mille a ngi nii kii de cousin am ñaari million la ma wax ci sama nopp bi ne moom la koy may te nag man jom màccoo ma taar ba rayoon maamam yaa baqari maam ma taar ndumbe soxna ñaan njagame ci njum ma sàmba ngànd nag ndaag ak ma ne ma xari pend ya jar na lu ëpp loolu am problème xoolal lii cinq cent mille la plus de cent mille na ah. tane de baax na. léegi xam nga lan la léegi noo garaaw léegi man danaa la jox un million mais du takk jàkk moom du métti métti benn un million mën na ko farata la ñuy def c'est baax na. xale bu ndaw bu bakkan bi di sotti meew foo laal meew muy xelli. Euh, Mbaye garaaw man dinaa la jox deux millions. léegi deux deux la deux la proposé man teg teg naa deux jeex na amul benn problème takku jàkk la ah bu leen ko fàtte. kii yaayam ba muy tuut lan ma ko joxoon may bàjjanam yaayam di jéeg bu baax mu ñal nag sama càmmiñ la war naa mën a jar lu ëpp lii kii xam nga ni mu jaral ma lu ne moo tax ma rey sama bopp coow du jib man dinaa ci teg beneen un million muy trois millions mais mbay wax dëgg yàlla nag trois baax na. parce que ñun takku jàkk rek lañ waxoon tamit mën naa bañ a metti trois baax na. ma ne yow sa robe ba ñaataati la woon. robe bi ay cinq cent mille. takkaay ñaata la yi ay un million deux cent un million trois cent. daal yi ak sëb yi nga war a sol ci jàkkaarloo bi tekki beeg tegaat bi nag. instant bi dëkk bi lépp a cher. te ñun ay sangomar lañu te gan ñi bu ñu ñëwee dañ leen di teral. xam nag teraanga la ñu xam di leen jox ñuy lekk ak di leen jox ñuy naan ba pare nag dañuy tëkkër ba joo suñu xaas di leen may dañuy may rek di maye jaam yéeg attends c'est xam nga lan la Adja Mbaye man dinaa la jox cinq millions arrondir ko mais nag na nga xam ni li ma lay jox nii waa Sangomar waa Njuufeen waa Ngomen ñëpp ngi ci biir alors robb yeeg dàll yeeg lépp mi ngi ci biir cinq millions yi bu ma kenn laajaat dara fa laa mun a nag ah fa laa a yem ah, parce que dara xale 2000 ya lañ de iPhone 13 la ñuy foyee de ak appartement bu ñoŋ ñu ne nangu ci kaw nag chambre à coucher bu riis ne seeni tànk nag ci ma ko di nooy duy seen frigo nag ba mu fees plein frigo plein jàkkaarloog seen écran plat yor seen télécommande di jàpp fu leen neex. dinaa ci teg un million jaral na ma lu nekk mais fa laa a yem. bàjjan la wax nag dëgg yàlla nag baax na. yow kii loo ko laaj depuis suba ba tey li nga ko laaj yëpp moo ngi koy def. baax na paa ngi jégalu bu baax xam naa waxante wuñu woon mais xam mais dañu bëgg xew maa ngi jégalu dégg nga. wax de benn wax yéex maa ngi dem léegi xam nga demee dinaa am ko ma yónni mu ñëw indi lépp mu mat su defee ñu def lépp quoi ah baax te dal jigéen nga xam ba mu tëdd kaay. xoola kër gi dañuy am ay gan dañ ko war a pentiraat yow la nu am am nga jom lool waa bàjjen mais booy booy si attaay bi neex na de non xanaa attaay man dal fi bàyyi ay kele ba muy dem ah oui ah. wóor na yàlla booy attaay nga. a assuré bu fi attaay nekkul yaay teg caayam bi quoi. da nga jënd këriñ bu bëri nag. saa man du ma la sax. yow def ni juif yow nga def ni juróom. eh gayen pardon waay grand s'il vous ah, doo forcer lii ah. dégguma léegi ma li nga wax de. non dama ne sa xoltu banaane yi laa wax doo ko for. yaa moom mbedd mi mbedd mi mbeddum buur la. mais comment. mais grand eh dama ne eh yow doo forcer lii wax. ma ne fii mbeddum buur la. xanaa xamoon ñun ñooy mbedd ñun ñooy buuru mbedd mi yow. dama ne nga force xoltu banana yi laa wax rythme rythme mooy lan rythme li ah. ñu ñoo ci wara ñëkke ha ah sànni si mbedd mi nii comme ça xoolal on veut un Sika propre waay dafa am chance ah en ko waroon chifaay chifaay yu neex je comprends pas quoi putain neen lañuy def mayuma sax xar bu bu pup ci mbedd mi waxuma la leneen jara ban problème nga am ak sa jabar bu bëgg takk ñaaral lan moy sa problème ah eh, taf taw ki amna droit tak ñaaral te julit la ki amul ben problème ak jabaram parce que awa amul ben problème ki julit la amna droit tak ba ñeenti jabar ah kon baxna xam nga lu xew ñun ñi ay kilifa la ñun ñett ñoy dem ci awa tok ci dem ba kër ga toog waxtaan ak moom dalal ko. kan ngay tàgg. booy nabu. jar da nga yeew gaynde de. Eh, xam nga kii kay waxuma gaynde xanaa da ngay jaay say bien. yow nabu nga xamante ni yaayam xaalis dañ bëgg normalement moom ku baax war nga fa bàyyi benn vingt millions wala benn trente millions ni ma xamee na bokk seen waa kër. non fan laay jëlee vingt millions kon yéen ba léegi xamu leen lu xew xam nga man dama yox bu ngeen ma déglu nabu man mag laa mais booy bi moo jooy ci man. Ah, dafa jooy xal jigéen bu la jigéen bu la bëggee dara du jafe. yaay ji dafa jooy. Ah, waaw kon baax na actuellement nii yaay ji moo ma teg pression nii pour affaire bi gaaw. Uh-huh. mais à peu près yow nii ay ñaata yooyu nga xalaat yow nga dugal. mais loolu méttiwul <laughs> jigéen kay bu la bëggee yow <laughs> méttiwul sëy jàkka la maa ngi xool à peu près benn. deux cent mille trois cent quatre cent mille. déglu ni kuy bëccëg nii ma morom de. ñun doon déplacé mag yu toll nii dem fi jox ay quatre cent mille ak ay trois cent mille. est ce que xam nga su ngeen yéexee yaay mooy actionné. Ah, ah. moom mooy takk. yaay ma ñoom ñoo bëgg. kon baax na non xam nga ñoom bu ñu bëggee rek problème baax na kon méttiwul méttiwul c'est bon méttiwul. waa léegi bu loogu weesoo ginnaaw léegi dafa in jooyaax dee naa dagg na léegi nan dem léegi si soxna si awa mu jeet ak ñu waxtaan ak ñu wax ak awa. ah kay. waaw jóg leen de toogaay jeex na. non man yéen jiitu leen maa ngi ñëw. waaye nan dem yéenay dem man nu mu fay wuti yéenay dem. Ah, waaw waaw toogal sax xoolal xoolal toogal na sa xel dal. nan dem eh, taf xam nga yéen information bu bu métti ngeen yor fii la

non booy nag dafa nang xaaral laay dem ñëw ñu xool nu muy demee xoolal. jantal booy <laughs> est-ce que yënga dara fii sa père benn instant dafa kontaan ci yow. et eh, eh, yaa ngi dégg euh, Senghor li muy foor fort man maa ko tëwoon maa ko mus moo tax dama lay xool nga may fàttali bi may am vingt cinq ans pii Dakaaru sama loxo dara du yëngatu. est-ce que yëg nga ne Alex ak Ino mais booy ñooñu tas nañu Ndakaaru yëg nga seen histoire Ndakaaru gépp toj nañ ko mais yëg nga ne mosuñu dugg Sicap dama ko sécuriser woon téye ko sama loxo. père yow kon bandi nga woon. noo du ma woon bandi quoi mais guerrier la juste benn guerrier boo xamante ni ah, dama ko doon teg ci temps. am fit ñeme ko comme yow rek xam nga décider pour koñ bi dara du dara du yëngu. voilà voilà c'est la jara jara. Ah, mais nag euh, kontaan naa gis naa ni nga mel ak sa yaay gis naa benn. bu am sama xarit la mais xam mais après tout on est ensemble <laughs> vraiment content mais dafa am ne mënu waa kër mbay xam nga ko eh, nday la am na yoo xam yow yaay bi partenaire nañ a waxtaan bon dama bëgg affaire looy wax nii. non tout sauf ça quand même yow gënuñ peuple li ngay wax fii yëpp ak Inoog Alex ak yëpp nekkati man ngay y a dóor quoi nan te bu toll ni man non pas bu ma waxati lii quoi quand même tamit. mais lan moo xew waruma takk ñaareel. mais ak situation yi quand même. non mais ak situation bu y a xew man Il y a takk ñaareel. néeg bii néegu bi dunduma ci lu neex te war naa dund te doo nangu sa papa génn ci mbedd mi di def naka su dul loolu. ah oui mais tamit aussi ah Il y a nekk tamit aussi di. Ah. di di def ay lëmbal ay qui ay lëmbal ak ay bombas ak yooyu quoi. toujours dama takk jawar moo gën. non dama ni la toujours booy wax dama ne mesurer sa langage sa papa ngay waxal xoolal ni ngay waxee ak man. te xam naa yow <laughs> boo xefee sax yaay dem jëli ko. waaw ah, mais loolu aussi dinaa ko jëli ji indi ko gàlle bëgg. sama loxo. non problème. yow yaay dalal sama xel am mënu wax yow rek ko wax. ah, ah voilà li le bon kii man maa la ko jox. mais père def mais non i man kenn du ma jënd papa i xaalis contribuable yi ngay jël di ma ko xoj ñii comme ça affaire bi noonu non dëgg ma si gis ñi ma jox xaalis man bul defar nànk yow man du sa baay nu ma lay jëndee sama yoon nekkul ci xaalisu peuple man lii sama moni la maa ko jox maa ko ñàq sama moni sa xaalis la yow am naa droit jox la ko lan la waaye la yow lay lay compliqué nii teel mais joxe ma ko loxo ndeyjoor quand même non joxe ma ko ah. mi ngi nii looy looy wu comme ça nii yow da tamit trop quoi lan la xool. Ah, waaw maa noo na nice quoi. Ah, coono <laughs> Jara. doom per Jara nante la doxal dox bi. <laughs>

Mais en fait, tu étais conscient de la situation. Hein, je te comprends moi. Euh, même Et toi, ne touche plus à mes chaussures. Que ça soit très clair. Avec ta grosse tête là, ne les touche plus. Mais yo, yo, lan lan lu xew def hum nga de trop nga nga xamal Oh, mais mais yaay lan la yow mais paa Il est la lii mu takk ñaareel moo gën nu mu nekkee si est bi yow kii lu muy takkee amul lu mu takkee est amul amul lu mu bay ah, non yaay xoolal dama bëgg nga tamit aussi référence nga da nga ay doomu référence am yoo xam ne nit est waruñu Il ci dégg hein? te moo xamal la maa xool sëy bi am ah? ci dégg yow tamit li bu ba beugé jabar pour man yow ya waron dem tak soxna andil ko ko ci kër gi am yo xam yaay waroo ko kii quoi tamit. sa bo waxee sama ka dem sama pap te dum nga waaye dama la jox cër lool te am na loo xam bëgg ma fa ak ak yow te rus naa la lool te dum ñu ma jox cër lool. diwlin diwlin diwlin nga ne la këpp ñii. Votre série revient après la pub. Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Marodi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Laïdjara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Maroudi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. jara looy daw kaay jara ñëwal man damaa nangu dogal bi liiru dara man dama jël air maa ngi ñëw lii du dara dogal dama neexul ci xol mais dama koy nangu ndax laa ko dogal kilifa nga war nga am ñeent benn sëriñ ah bu ma waxal ay sëriñ fii dafa sedd fii dafa sedd dugg si fii ci biir ñëwal non xaaral ma àggal istixfaar bi astaxfirullaah bu matee rek maa ngi ñëw ñëwal fii dafa sedd. damay está astaxfirullaa bu motee o ñëw jiitu ma dugal ci biir. racine plus 1 égale 2. yaa ngi nelaw eh yaa ngi nelaw soo jàpp boo sonnee da ngay arrêté eh? bi soo jàngatee ba yëg ni sonn nga arrêté kay nga tëdd récupéré jàng bi ak récupéré bi ñoo ànd sinon da ngay sonn ah. ah xam nga man damaa bëgg su may wax ak yow sa kanam gi belli tuuti. doom bu jigéen moom pour papaam la hmm? sama xarit nga kon su may waxee yow war naa sentir sa keneen di benn wala da nga bëgg ma def la comme li ma la doon def tigi tigi <laughs> neex na waa di laa bëgg a gis ah ba léegi léegi liil nga rek ba léegi rek bébé nga rek alors gis nga yow sama séddoo nga eh, léegi am na loo xam ne mënu ma ko wax ak mbay am loo xam mënu ma ko wax ak laaj mais mën naa ko wax ak yow comme yaay sama préféré eh, sa tante ndeysaan mi ngi may sax yóbbante ci yow nii ma sa doom jigéen bi dama ko bëgg nday man xaw ma loolu lu mu doon daf la bëgg bay loxo di ma ko wax nii gis nga dogal alors moom la dafa a ñëw mais xam nga kër gi amul espace am na loo xam nag sax naa la ko def ndax may sa pàpp ma bëggoon nga libéré ma néeg bi quelque temps rek moom mu wàcc fi ban néeg bi moom day Faut que continuer def fi wacc ñu def aada rek mu wacc ci bi quelques jours quelques temps xam nga après momu mu libérer libéré bi yow nga ne sa pas yow gennu yaa ngi fi à côté fi la lay yóbbu ci Je tale bi nga jël mer gàddu gi ko noonu rek nekk fa pour quelque temps la. Ah, man tudduma ci ay mer gàddu de rek man lay ne ko sa ku nekkul ko ah ah la ñaar jotewul dara ak projet bi ma doon wax xam nga tax yëpp yaa ngi doon projet bi nelawuma nag yow ndax yow loo mu wax maa ngi ci bàyyi kan. xel ñaata nga ma pour projet bi. dama koy ya, arrondir un eh, million laa lay jox. en même temps am na benn magasin ni repéré naa ko ba pare pour yow la soo góorgóorlu rek Mm. <laughs> ah, yow ah, sa papa rek da nga koy nax eh, ti ti ti ti Leg c'est bon. pas de السلام عليكم السلام عليكم آه. may len ñu ciowli li way dañu am suñu dekkando bu wàññeeku. oh. waaye hmm. sigi leen ka ndigaale waaye waaye yàq na programme bi. yow nekkal mag mag bu toll du gën ay dajëg programme. ah waaw yow ñu ngi bu baax. nañu jara nit ku baax la kilifa gu baax la may nañ ko xale bu ndaw bu tuuti bu ne la.

waxal sa papa nga wol mako legi ne ko auto bu luxe la bëgg hmm. euh mané <laughs> auto bu luxe ngi ci suuf man sama auto ngi fi man nañ ko jël Diego waaw taf la bayka jagne <laughs> naam maa ngi yéen ngi ci jàmm ñu ngi sant kay jamu ju bari nek len ci jamu ju bari nak alhamdullah eh demal nga wol ma sa papa nga ne ko nama indil auto bu luxe ngay xin xin ni ne ko reer demal demal demal wo sa papa ah kii day bi jaaxal allo. waaw waaw waaw. fu ngeen toll. mais papa mais sa jabar bi dafa réew de. déggu ma. waaw papa dafa réew laa wax kanam de waaw. ne oto yu luxe la bëgg a jël. waaw mooy mais mais oto bu luxe mooy la xanaa oto oto rek mooy lan léegi nag. oto bu luxe waaye dañ koy luye oto bu luxe waaye. waaw léegi léegi léegi oto bu luxe d'accord léegi léegi nag lan la oto bu luxe ñaata la. soixante-dix mille. soixante 000.. mille ma xoolal ma francs Je ngi vous donner 100 000 francs nga gérer ko. mais papa vous foo furee yo yow booy xoolal soo yónnee ku ci loolu Vous ne yow toppatoo oto bu bi rek soo yónnee ku ci loolu. dama koy non dama koy bàyyi de. non booy jàpp ci na yow tamit ah yow nga gaaw a trop eh jàppale sa papa eh Vous lu gaaw affaire bi ñëw maa ngi lay yónnee francs. waaw envoyé. waaw ah, oto comme de oto bu luxe bëgg xoolal leen bu luxe rek ah ah na de quoi grave.

cinq cent mille la ñuy laaj. ma ma ne may leen ma wax ak kii wuy ma xam naa ne ay jaam ngeen nag waaye nag fo ah, foo bi ëpp na téeméeri ëpp na luy jaam. jaam lan mooy la xamoo jaam. mais eh, eh, eh, dama ne aadal fii lañu ko fekk te fii lañu koy bay. seet balaa génn jaamam day laaj teeñam. dama bëgg nga wax sa papa ne ko mu wax ak jaam seet bi mën a dem woo dama nga woo papa ay woo sa papa woo jara woo jara allo. mbaa jàmm la mbaa jàmm la mbaa jàmm la. waaye père sax laa xamul.

napp ñëwal. yàlla yàlla wasal barke jërë ngeen jëf. waaw waaw sama a taar ba rayoon maamam. kii maamam taara ko rey. ah, ah dey xaalis rey nañu ba ñu dee. <laughs> jar ko de bal door bal saaga américain lan la bal door bal saaga oto bi daf yàgg na ko def. yàgg na ko mais lan mooy na koy def quoi benn panne bu ndaw la rek. mais non putain je comprends pas quoi lii mais lii ba jàmm la. man xam nga ñii lan la ñuy def nii ci oto bi nii mos ngaa gis oto buy jël seet di panne nii. xam nga ni kii wutaluma oto de luxe de. ah doy na waar de ci yóbbu seet. ñi panne ci àll bi nii ci war a seet. doy na waar de. waaye xaw ma lu ngeen defee di ngeen wut oto bu ngeen ma dugal

xooloo papa. waaw hmm. oh, mais pa oto bi dafa paan. waaw dama wax ni tamit quoi oto bi dafa paan mooy lan wuy ma booy gérer ko. waaw oh, mais dama cee mën dara. non fexe noo taqale ba ngeen ñëw rek yéen accéléré rek yéen. lu ñuy def comme nan dañu wut benn oto c'est tout. maa ngi lay envoyé cinquante mille fi ma taxaw sama téléphone nga récupéré ko. nga liggéey beneen oto ngeen ñëw lu ne beneen oto. waaw envoyé. soo je comprends pas quoi mais booy léegi nu ñuy def yow booy. mais non man moom fii la ma yàlla doon xaar man dee naa pare man moom dee naa pare moom damay jëngu nii mais dee naa pare waaye da ngeen dëgër da ngeen dëgër bopp rek du ma di ngeen ñëw de di ngeen ñëw fii de. Salut chef. Ouais chef, ça va Ça va Ça va grise. Un permis, Salut, infraction là mais, mais non, boy, moi je comprends pas quoi. Bon, tu peux dawal auto te yoro permis. Mais dama ko faté. Hein Lolu la mëna dalé. Eh mais eh, agent Sambou, mais comment vous allez chef Yaa ci jama. Ah? ah oui, sama papa, sama borom tak jabar. Eh, noppil. C'est pas si tak jabar sama yoon. Ah, mais Allô Djara, Jara li dal chat la. ñoo ngi nii di far wàññeeku xale bi doon dawal nekk te yorul permis police yi arrêté nañu mi ngi noonu di ko yóbbu yaay xale bi nag mu yaayu nabu woon na ma nee na foog nu génn ay sarax xoolal cap li laay rocci sànni ko fële ca xaj mais ñëw foog ngeen def ko problème bi yëpp man la man maa warta jox kenn information ci samay mbir lii la cat da cee gaaw dugg mais bu dee problème policier bi la attends mbaye man dama yónni sama dom 000 jox ko 400000 francs ah. ngeen le policier bi 100 000 francs 300 000 ngeen def ci bi mais après ngeen accélère rek man limay accélère ak voilà c'est bon Il ba di mais yeen da ngeen bëgg samay ah quoi ndànk lañ mère ndànk. ndànk ah, soyez les bienvenus ah. cherchez kii maamam buur la. dëgg la buy wàcc dañ koy tef ndànk di ko tete. wàccal ak jàmm dalal ak jàmm. ayca. non ko siyu ma si benn kër di yeewu ay xetu meer di ma rey. yow luy wax ni yow. yow yaa ngi may bëgg a laal ah yow sóobu na yaa ngi may war ah yow lii lan yow da yebaate ah yow xamoo sa bopp ay eh, xoolal mère eh, ay xoolal xaaral ma sa papa ah mais père sa jabar bi réew na ah mais sa jabar bi dafa réew. yow yaa gën a réew ñëpp yow nga wax sa papa naa ko sa jabar bi réew na xanaa xamoo kii sa tante la yow. ban tante mais je comprends pas na ngay mën a takkee jabaru soko soko yi am nga ñëw ba ba ci gàll bi ne appartement lay dëkk du dëkk sa gàll bi. maanaam moom waaye moom si buntu kër gi yo, yo. ngi toj kon. mais tayal booy booy rek booy rek la waay. booy booy mais li lay yoon. waaw waay yow yow. yow xam nga dañ laa yónni rek yow yamut fi ñu la yónni kii comme ñëw na ba ci buntu bi dina dugg. non kii dafa réew. kii mën naa lekk non est-ce que mën naa lekk avance du bëri combat bi. loolu sa doom lu mu wax. appartement nga ko waxoon. booy. mais Mbaye yëgul ni yow li jox mën a tabax kër <laughs> yow sa sagaru million millions boobu nga ko jox. nga ni ma. Paa Jara sañoo lii waay Paa nag sañoo lii nag yow it. Ah. Oh, waay mais léegi nag ma ne déggoo li ma la <laughs> dugal ci appartement ba nga ko ma delloo ko mu ñibbi waat ca kër ga. kii maamam taara ko rey. sa maam reyu kenn wuyu maam dara xoolal da ngeen race day génn da ngeen koy buqee ah c'est quoi ça ay papa lan yow waaye papa fasal ki wàññi dem waay yow lan luy taxaw yow da ngeen jëbaate ah yow xool yow yow sa carrière moo gën a c'est si sa yi hein. ah ñu 17 h war la fase 23 h doo rus sax nga may xulli sa kanam bul ma xool hein vous êtes en sursis hein ay papa fasal ki waay ay papa dégagel ma ñuy fii waay dañ la delloo sa xaalis Good morning, everybody.

looy wax. calme down ah man wax le ma lu ma mën na comprendre lan moo xew ndey lan moo xew si kër gi. xanaa sam dem joxe waruga 6 million xale bu jigéen bi ñëw ba fii ne ci apartement lay dugg li la def. non dégguma nga ni ñaata. 6 yow ba ki démb nee nga ma fii da ngeen togg sombi suukar matul xaw ma meew ma yónni la xaalis foo jëlee 6 millions. lii dama ci dal benn kooku ndaw ma dal ci noonu rek.

yaangi ni jël sa xaas dem sanni ji ci mbedd bi waye bax li wolof njaay di wax lo nacc sa loxo lay rendi mo ngi ni samba alar, samba alar, ñang bay kër ga yaaka nañ ci yow samba he samba yo samba jara kii na un hein ah non non do joy ya ko def da ngay assumer bisofi fi erangoñ jeen fi bisofi fi jeen fi lu métti métti dama koy gérer yow xam nga <laughs> mystique la rek mais dama koy gérer benn problème. ah Aye. Welcome to my dark side. Sacré cœur, liberté embastisse. Dicap baobab, dicap karak, comment? Lépp mën a nekk fii mooy cap si.